ay coupure yu dul jeex la ñuy menuisier bàyyi ko foofee ca Liberté 6 di dund ndax rek facture courant yu metti ñun de ñu ngi jëflante ak moom de waaye metti na trop quoi waaw suñuy facture yi day ñëw pour ñu fay ko sax problème lay doon way ba démb rek la mujj sax yaay booy demb démb rek waa jaa ngi ñëw fii bëgguma coupe couper vendredi bi donc bu couper vendredi pour nga fay ko samedi lay doon xam nga lundi nga jëm ak ñoom day metti quoi. mu nekk lu leen di jural ay gàllankoor yu bëri. waaw conséquences yi bëri na parce que gars yi fois bu ñu ñëwee tombé yow noo fay courant bi nga war a négocier ak ñoom am liggéey yoo xam ne ñu ngi taxaw ñu ne dañ lay coupé donc bu ñu la coupé après. perturbation bu métti lay doon client baa ngi taxaw di xaar liggéeyam. waaw ñun daal ñu ngi noonu rek jëndee fukk jaay juróom lañ fi nekkee xam nga loolu moom <laughs> mooy. métti na trop jëndee fukk jaay juróom moom ouvrier moom la ñu nekkee ci dëkk bi. yokkute boobu ci courant bi nag soudeur métallique yi tamit ñoo ngi koy jooytu. des fois des fois nga dugal 3000 des fois nga dugal 2000 yooyu noonu 5000 daal wala 5000 daal. ci nañ bi waaw actuellement nii nii 5000 5000 lañ dugal. ah métti na de métti na parce que boo jëlee nii 5000 5000 nii sax mun a def 20 jours day jeexaat. ñoom nag ñu ngi woo nguur gi mu def ci li war wàññi lii di courant bi ndax rekk seen liggéey mu ngi gën di sooxee mu nekk lu metti lool ci ñoom